bëgg a ci Lutte TV donc grand ñu ngi lay wax ndokkale si sa bés bi di gis ni tey ñëpp ñëw nañ fekk si la gis ni waa Médina tey kenn desul say mbokki mbër kenn desul ñëpp ñëw nañ tey ban santiment nga nga sentir ci sa bés bi grand. Euh, jërëjëf Balla vraiment bi ñu sant yàlla julli si yonent bi tey am nañu am nañu bu mag a mag a mag a mag parce que xewle xewle dafa yéeme. parce que olof dafay wax naan mun ngaa mun ngaa luye ay chaise mun ngaa luye ay bâche mais doomu aadama yi kenn mënu leen luye moo tax bu dee bu dee sax am da am xalaat boo war a xewle rek da war a am pression ndax ni ñu danañ ñëw wala du ñu ñëw donc teewaayu ni ñu loolu nag moo war a xala moo war a dalal sama xel ba nga xam ne loo doon def benn su lu baax rek da ko war a yokk te sama digganteeg nit ñi bon maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax am na respect boo xam ne dafa am sama digganteeg jaamu yàlla yi muy respect bu sincère. dëgg la koo yëg mu yëg la xam ne ñu ne ay doomu aadama lañu doole day jeex dund sax dafay jeex donc soo ko xamee noonu rek boo nga xam ne doomu aadama kese nga mën a doon leneen loolu rek a tax ñuy rafetal suñu diggante ak nit ñi. waa tey prési Boy Kairé tey di sa jour jubilé ñi nga tollool jamono bëri torop ñi nga. fekkee seen jamono tamit bëri torop tey nga bàyyi ñëpp tànn Moustapha Gueye pour def ak moom sa tey loolu tey lu lu yàgg lu ngeen dund la wala loo xam ne la njukkal la boo koy delloo donc lu waral loolu xam nga ay sportif la ñu mhm. ay sportif de haut niveau la te maa moom sunu carrière bi ñu si tolloo gaa dañ daan bëri mbapat mu daan am ay coow ñun ñaar moo tax diggante bi dafa am benn respect bu garaaw bu ci am parce que respecté respecté naa ko nag ngir ay qualité am amoon ay qualité bëre la waaw li may wax li koy firndal moom nag boo xoolee combat am yëpp kum ci nekk lu mu la daane rek daane wu ko sa morom parce que le les les les archives sont là xam nga. ku fonkoon entraînement la loolu moom témoignage bi ñuy def ci moom. vraiment moom it xamoon na sumay qualité parce que bu ñu bu ñu mosaan daje day bëri dem nañ sama bëgg a bëri. dégg naa bëri ngeen mbapat. ñaari yoon waaw seen combat boobu nu mu demee woon bëri na coow de dégg naa. maa ngi ñëw de xanaa xamoo ne dañ xëy na yàllaa ko judd la mais dem nañ sama bëri waroon bëri arène maa ngi moom. Ah? waaw ngir ngir xam nga rek ku ci nekk da nga doonoon gaynde jàmbaar goo xam ne. nekkoon nekkoon nekkoon mbaru gétt. mbaru gétt waaw mu nga xam nga mais àddina di dox di dox di dox moom ba fekk si ko mu yëkkati paas kon man su ma defee loolu am na ay qualité ma gisoon ci moom mais nag ba ma ko fekkee ruj écurie Fass du woon yaafus de. dëgg la mbër woon. buñ ma saan contact contact yu garaaw la woon. dëgg la buñ ma saan jël gant benn bés du ma ko fàtte mukk. non Pape Gueye moo daw dugg suñu. ma <laughs> ñaaw Pape Gueye boo àttee. ma ne ma daal di guux loolu. ne dinaa fayu. dëgg mel ni bos Blaise ma man ma door ko góor ma door ko droite droite bu baa Badou remise bi ñëw. lamba ja jeex mu ne ma mu ne ma mbër ma naa ah, mu ne ma gis sa droite bi boo ko doon appliqué. waaw ah non man dina fekk ci gars yi léegi <laughs> lamb gi dafa am changement yu bëri yu ci am yéen seen i jamono mbëri dañ daa bëri petit combat bëri troisième combat quatrième troisième ba boo daa bëri grand combat dañ la daa bëri tëggal combat spécial. amateur yëpp xam ne kii spécial lay bëre pour bëre ji grand combat mais loolu yëpp amatul mais changement yooyu at at làmb ji vraiment jaxasoo bi mu am ni yow ban ban xalaat at jàngat nga ci am. loolu dafa laaj réflexion bu extraordinaire parce que gars yi yàgg nañ di ko wax mosuñu ko jëfee bu njëkk gis nga làmb escalier la woon pas à pas ba keroog ngay bëre spécial boobu bu njëkk sax mu ngi doon combat déclassement ñu ne Balla Diouf ak Mbacke Seras ñooy bëri combat déclassement. ki daan dem dafi déclassement bëri ci grand combat ki ñu daan. continué la chance. mais léegi nag da ngay doo sax mës a bëre am nga mbooloo peut-être am nga gars yu nekk sa ginnaaw peut-être ñu propulsé la poussé la nga ñëw rek bëri grand combat. donc xam di ci waxantu ba ba mu décidé ko ñu def ko mais lii kaxee def moom mooy lii mooy ajjë ajjë boo koy def képp ko xam ne mos naa ci xëy yow composante lamb yëpp tey jii. dañu wax nekk derrière Boy Kayre sa diggante ak Kayre at bësam bii nga xam ne tey ñëw nga ko fekk waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi euh, bisu bànneex la tey man baat bi ñuy wax naan Kayre day génn làmb bëgguma koo dégg ndax lu tax Kayre mi ngi génn mais mi ngi duggaat ndax jéen Kayre doomam mi ngi ci làmb ji kon Kayre génn na ci làmb ji mais dugaat na ci làmb Kayre tey ku ko fay borom rek dafa war a kontaan bég ndax Kayre ñëpp la amal jàmm bari nañ benn yoon keroog dafa mel ni mosu ñoo te combat boobu man na yàlla may ndam li mais fu ma gis day mel ni kayre ñoo bokkul day ñoo bokk bay rawatina tey nag gis nga mbër yëpp a ñëw dégg naa biig fii mbër yëpp a ñoo Ama Baldé ñëpp ñëw loolu mooy adduna ndax li mu def Moustapha Gueye ko njëkk a def Boy Kayre tegu ci Moustapha Gueye tey lu waral sa ci bésu booy Kayre en fait ñun ay mbër lañ bu nekkee ay mbër Kayre nekk suñu grand nekkoon mbër dem ba a zibilé dem ba war a sibile tey Xaadim Njaay toog dama Xaadim fu mu toog rek ñun dafay toog ndax Ousmane Nooré lañ ma tuddee Kairé suñu lépp la suñu grand bokk nañ nekk Fass affaire bu xewlee dara ñun dañu war a teew def suñu participation ba mu saf sap tey stade moom stade stade stade foofu dëgg da nga mas barke Sëriñ Saliou Mbacké dinaa na cuur dinaa na car waaye ma lambaay nga lambaay stade lay léeree Jilali Dia stade lay léeree mbaa waaye tey làmb ji du yomb. ban sentiment nga am ci bés bi. bon avant tout damay nuyu seen téléspectateur yu Leuk TV tey dafa nekk journée bu spéciale suñu mbër parce booy def dara da a bëgg da nga ko war a gëm tey dafa neex ci carrière nga dem ba jeexal di def jubilé loolu day bokk ci histoire làmb te Boy Kaïré dafa def ci làmb loo xam ne kenn dootu ko fàtte parce que nekk na pendant des années mu retenir 26 victoire record bi kon tey bu demee bay tekki ngeen ma woo ñu nekk ay dañ ci ànd ak lii nii ñu rafetlu trop sa teewaay fii ci bésu Boy Kaïré bi waa bi ñoo bëgg a waxtaan ak yow donc euh, li nga xam ci Boy Kaïré donc ni nga ko xamee ci àdduna ak ci milieu sport ak tey sa sentiment ci teewaay bésu Boy Kaïré. waaw Boy wax dëgg yàlla ba mu ko xamee yàgg na boobu lu tuuti la. muy jàng école di yor ay kayam di ñëw di seetaan sunu entraînement fii ci soit écurie Mermoz ci Soumbédioune ak ndoom si yàlla si Modou Pouy eh, muy ñëw foofu ak ndoom si yàlla si Boy Kayré numéro un kooku la gënoon bëgg sax ba tax mu doon gën di ñëw entraînement ba yàlla def mu jël turam mu nekk na xale boo xam ne bu am gëm-gëm la am pastéef la et puis ku nangoo jàmm yàlla la aussi fonk ay waajuram daal ku démb dafay tax tey rafet quoi dana taxit waa tey gën a góorgóorlu pour ëllëg bu ñoom it leen di fàttali waaye buñ dee fàtte rek bu baax quoi. spectateur Lutte TV donc ñu ngi dellu si at sunu champion sunu grand di champion bu mag ci làmb di Lac de Guiers donc euh, tey ñoo am mbégte trop fekk ko fii ci bésu xaritam doomu ndayam di grand booy Kairé kii ñu toogal nii moo ñu gën a xam Kairé Lutte TV mi ngi lay nuyu waaw Balla ñu ngi lay fay bon ça nous fait énormément nga laaj ñu si suñu doomu ndey yàlla dogal mu def vingt huit ans de carrière ba war a tekki donc nu ñëpp ñu bokk àndandoo nekk fi ak moom quoi donc euh, muy mbir mi nga xamante ne vraiment képp ku nekk si métier di liggéey ba yàlla def nga war a génn war nga mun a sagal sa bopp ak ànd ak say nawle donc kay rek nit ki nga xamante ne man ak moom parce que 30 ans ñu ngi nekk donc euh, lépp lu doomu aadama xam ci moom euh, foog naa ne man maa ci maa gën a positionné pour xam ci moom muy nit ku baax ku am diine ku am lislaam donc musul yàq làmb yàlla dogal na mu def carrière bu mu jeex ba te ay doom di bëre bon muy muy recordman victoire si lu ñuy wax donc loolu mbir la mi nga xamante ne du du la ko yàlla defal daal donc comme moom yàlla defal na ko mu bëre ba bàyyi bëre làggewul pattewul amu si benn ndog donc doy doy doy na sant yàlla quoi donc yàlla yàlla saxal lépp yokk doole si barke yonent bi sallallahu alayhi wa loolu wax ji rafet na sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ si atte mbàgg yàlla na fi yàgg te wér boo gisee loolu mooy kayre moo dooy bëri nit ki bokk añ bokk reer yàqul daal léegi boo bëree nit ki sax ay noonte ngeen doon léegi lii day wane exemple lamb mooy mbër ñi day war a bokk nday bokk baay ndax lamb day jeex pour boo xewlee ñëpp ñëw waaye fekk naa noonante mbëri boo xewlee mbëri kenn du ñëw